xalifa général Mouride yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér Cheikh Latif Diène xalifa maam Cheikh Issa Diène yàlla na fi yàgg te ànd ak wér Serigne xalifa sëñ Moussa Ka Madina Thiéné yàlla ànd ak wér bu Diène xalifa sëñ Baara Diène yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér Serigne bu Diène xalifa sëñ Mbacke Marema Diène yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak waaye ànd seeg ki nga mooy seen kilifa muy bàyyi Thierno mu fi toogal maam Galaay ka muy ñaan gi nga xam ne nag mboolem njabootu maam Galaay ka ñoo koy def ngir ñaanal seen waajur tedd boobu du maam Galaay xam ni dafa joxoon léppam maam Cheikh Issa Diène joxoon léppam Serigne Bara Diène ñaan gi nag jàpp nañ ko muy dimanche le 15 janvier yama fukki fan ak juróom si weeru janvier ñu war ko amalee sa guy meew Saalum njënd la gën bis boobu nag mboolem njabootu maam Galaay ka ñoo ngi si woo mboole mbokki jullit yi mboole mbokki taalibe yi ak képp koo xam ne rek euh, maam Galaay moo njaboote dañuy bañ a lim waaye képp ku dégg suñu kàddu rek ñoo lay woo si ñaan gi xam ni dañ koo fusee def ngir fàttali ko seen maam jooju ngir fàttali ko jàmbaaru lislaam jooju di fàttali ko jàmbaaru maam Cheikh Issa ji muy maam Galaay xeweka kon bis ngi noonu di si woo mbooleem njabootu maam Cheikh Issa Diène mboolem njabootu maam sëñ ngañ sëñ ngañ njabootu sëñ Mor Talla waaye képp koo xam ne rek euh, ak tarixa boo mënti nekk ñu la woo bis bu màgg bi jàpp nañu ko muy dimanche le 15 janvier sa guy meew ñaanu maam Galaay xew ka ñan ñoo koy def mboolem ay njabootam waaye ànd seeg ñi nga xam ne mooy comité d'organisation muy kan muy Serigne Cheikh Ka Serigne Ibrahima Ka ak Serigne Sirika Bilal kon ñu ngi leen si woo asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh